الصباح في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel euh, fii ci euh, MK TV muy télé bu mag bi nga xam ne moo nekk ci euh, grande mosquée bu Touba di len jox lépp luy xeetu information bu yitteel yoon bi yitteel jumaa ji waaye itam di leen jox lépp loo xam ne luy jariñ la ñu ngi fii tey ci euh, kër bi nga xam ne moom mooy résidence Xaadimu Rasuul ñu euh, fas yéene nag def ak yéen benn euh, reportage boo xam ne dañ koy amal fii ci biir waxtaan ak gan waxtaan ak waa wilaya waxtaan ak waa muxadamatul xidma euh, ci liggéey bi ak ni muy doxee fi nga xam ne moom moo di ci biir résidence xaadima rasul bi nekk fii ci jumaay ji donc nag ñu def lu dul jox leen dig daje léegi-léegi ci biir ñu wan leen yenn ci nga xam ne moom mooy liggéey yi nga xam ne moom moo fi am moo xam bu waa wilaaya di amal la moo xam bu waa Muxaddamatul Xidma di amal la ñoom ñëpp nañ leen indil ay leeral ci wàllu liggéey bi ak doxin bi fii nga xam ne moo di biir résidence Xaadim Rasul ci MK TV lay am topp leen ñu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi ngi nuyu waa MK TV eh, di surtout daayira Muxaddamatul Xidma bu Grande Mosquée de Touba. te di ndokkeel jullit yëpp Euh, ni ngeen ko xamee daayira Muxaddamatul Xidma moom la euh, sëriñ bi dénk euh, boole leen ci comi comité organisation ñu dénk leen accueil hébergement service et organisation cérémonie officielle ak restauration loolu nag ñu ànd ko ak daayira wilaya lu aju ci nag ci wàllu accueil hébergement service yi di sous commission boobu daayira Muxaddamatul Xidma ñoo ko yor di ci liggéey. kenn ku nekk xam na ne fii ci résidence bii di Darou Marnaan ak résidence bële di fii ci résidence bii di Touba Mosquée bokk ak résidence bële di Darou Marnaan ay nombre de délégation yu kawe yu yu takk ñoo fay dal ñun nag xëy na li ñu gën a maîtriser muy fii ñu nekk muy résidence bii di kër Serigne Touba gi ci jumaa ji loolu nag su ma doon natt nombre de délégation yi ñëw xam naa ne fi mu ne nii. Euh, ci ñi nga xam ne ñoom lañ doon séentu war nañoo agsi ci quatre-vingt pour cent fi ñu jàpp na ne lu ñuy des du wees vingt pour cent fi mu nekk nii euh, ci nag euh, tarixa yu wuute lu mel ne Medina Baye lu mel ne Bamba Moodu kan ku ne xam sa diggante ak sëriñ bi mel ne Ndeer Naar ki jul guy yat ñi ngi fi délégation Laayeen délégation Medina Baye délégation Pire euh, euh, ligue des imams de prédicateur muy ñoom imam Ahmad Dame Ndiaye ñoo xam ne euh, jàpp ma seen waaye daal quatre-vingt pour cent daal ñu ngi fi ci li tàmbali quinze safar la la liggéey bi tàmbali woon démb di seize ba tey di dix-sept kon nit ñi dañoo teel a ñëw la quinze lañ tàmbali woon di recevoir ay gan fii ci kër gi ba tey di la dix-sept jàpp naa ne fii ak guddi incha allah suñu pour cent yi ci des danañ ko remplir. liggéey bi nag euh, sagam tarixa yi ak kilifay diine yi ñoo fiy ñëw dañ koy dañ leen di dañ leen di bëgg teg suñ suñ kaptalaay kattan teg leen ci norme yoo xam ne day ànd ak sécurité ak jox leen gëdd gi nga xam ne moom la ñu yelloo muy accueillir leen ca buntu ba recevoir leen ñëw yóbbu leen seen chambre arrêté seen fiche d'avertissement euh, jox leen carte d'accès yoo xam ne moom lañuy dugg ak génne jox leen parking boo xam ne dañ mën a garde oto yi lépp ci liggéey bi la bokk. loolu lenn lu ci nekk mënut a ñàkk ba noppi it boole leen ak ndaw loo xam ne mooy nekk ci euh, seen dispositif lépp loo xam ne moom lañ yittewoo ñu ñu defal leen ko loolu daal ci tënk mooy liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma boo xam ne ñu ngi koy def fii ci résidence bi ci kër Serigne Touba gi ci jumaa ji xëy na su ngeen demee fu mel ne Daaru Manaan responsable bu nekk foofu dana leen mën a leeral liggéey bi. ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, voilà mbokk yi nga xam ne yéen ngi euh, teewlu fi nga xam ne moom moo di site internet bu euh, MK TV di grande mosquée bi nga xam ne moo nekk site bi nekk ci biir grande mosquée bu Touba bi le waaye itam ak Feeling Dakar TV ñu ngi jàkkaarloo ki nga xam ne moom moo di imam Mouhamed Abdallah Sall nekkit leer ci Serigne Abbas Sall. moom nag mu ñëw jiite délégation bi nga xam ne moo fi teewal euh, Serigne Abbas Sall bokk ci njaboot gi euh, imam dañu lay nuyu bu baax a baax di la dalal jàmm euh, ci dëkk bu sell bi rawatina ci kër gu sell gi nga xam ne ci nga nekk muy këru Cheikhul Khadim gi di la wax nga nuyoo ak internet yi nga xam ne ñu ngi lay bàyyi xel ci télévision bu mag bi nga xam moo nekk ci jumaay Touba ji. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi yëkkati suñu kàddu di bu yaatu ci bisu tey bi nga xam ne ci lañ ñëw tuubaa ci kër sëñ Touba tabarkallahu euh, nekk euh, ganu xadimu rasul ndax fii képp ku fi ñëw rek euh, ganu Cheikh Ahmed Bamba kon nag ñu ngi ci am mbégte bu yaatu di sant ci loolu waaye nag yàgg nañ ko def jëpp jamono Serigne Saliou ba tey mos ñu mànk benn yoon dégg nga màggalu Touba ndax euh, képp koo xam ni yaa ngi wax la ilaha illallah muhammad rasulullah war na nga jàppale Serigne Touba ci sant cant gi loolu moo tax ñu ñëw fii tabarakallahu taxawal fii njaboot kër Serigne Abbas Sall yëpp waaye taxawal fi tam xalifa bi nga xam ni mooy xalifa sëñ Abbas ñu ko wax Cheikh Ahmadou Tidiane Sall gannaaw bi yàlla defee nag suñu xalifa bi fi nekkoon euh, nelaw fan yi passé yàggul koy wax sëriñ Mouhamadou Mansour ñaan yàlla jéggal ko yërëm ko euh, tey jii nag fii ñu nekk nii ñaari délégation la la àndal benn bi moo di euh, délégation Kër Sëñ Abbas benn bi mooy délégation askay association islamique la coordination islamique ñoo ànd ñëw fii ndax dama bokkat ni ma bokkee kër Sëñ Abbas noonu laa bokk ci coordination islamique boobu la tabarakallah macha allah mu mel ni imaam seen teewaay ci eh, màggal gi leeral nga lépp ndaxte du Touba moom ñëpp la fi nekkal eh, diine rek moo ko tax a jóg yéen itam ngeen nekk ay ñooñu diine Euh, naka ngeen gisee euh, organisation bi fii ni ñu leen fi dalalee ak euh, ni nga xamee ne noonu la leen taalibe yi accueillir ci kër yeeg ak di leen toppatoo ak yooyu naka ngeen gisee loolu. xanaa am mbégte rek wax dëgg yàlla ba ñu commencé ñëw ba tey mosuñu am lenn lu ñu lu ñu metti wala dara ci dal bi ñu dalal fii te itam comité d'organisation bi vraiment dañ leen sant bu baax. kiñ ci gën a jege nag di jokkoo moom mooy Cheikh Abdoul Ahad Bousso moom lañu gën a jege di jokkoo ak moom waaye nag ñu ngi koy sant eh, di yëgal kilifaam yi itam lépp loo xam ne war na rek dégg nga ci eh, ñun tabaarakallaahu dara dara manqué wul loolu ñu ngi ci am mbégte dégg nga bu baax a baax comme li ma waxee ni man yàgg naa ñëw ndax bi ma jëkkee ñëw màggalu Touba sëñ Saliou Touré ànd ak man ci sëñ Saliou Mbacke bañ àggee sëñ Saliou am mbégte bu yaatu la ma njëkk a wax mooy ndax xam nga sa njabootu bàyyi sëñ bu Mbacke ma ni tekk mu ni ma sa bàyyi Chouaïbou dey yor naa fi ay téere yoo xam ne sa waajur ba sëñ Abbas moo ko bind sëriñ bu moo ma ko jox mun ma kon nag seen ñëw fii ci màggal gi suñu mbégte la te da xam ni kenn ëppalewu la ci bis bi boobu ba léegi nag ñi fi jaar ñàpp di commencé ci sëriñ baara tabarakallahu eh, hamdu hamdulillah ñoom ñëpp ku ci nekk yàlla dimbale woon nañu ba ñu jaxasoo ak ñoom waaye tamit eh, sëriñ Muntaxa ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal wér di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ba yii mu sumb nga xam ni yokkute bu rëy la loolu rawatina li nga xam ni mooy mooy bi nga xam ni moom la taxawal nga xam ni xam-xam dafa am solo te ku ne jàng na sëñ Tuubaa ni mu euh, fonk woon xam-xam kon fonkal fonkeel googu nag fonkeel googu nag moo tax ñu am mbégte bu rëy ci di ko ndokkeel nag eh, tabarakallahu ci bis bi eh, ak mboolem njabootu Serigne Touba waaye tamit di ndokkeel ci université bu mag bile di gërëm tam waa jumaa ji ak seen organisation bi eh, tabarakallahu ñu leen seedeel daal am na ñu mbégte bu yaatu tabarakallahu ci ci ci bi ak yëpp daal jërëjëf mu nekkoon euh, ki nga xam ne moom mooy euh, ki fi teewul euh, délégation bi nga xam moom mooy délégation Serigne Abass Sall nekk imaam Mouhamad sàll mi nga xam ne doom la ci Serigne Abass Sall ñu ngi koy ñaanal moom itam di ko gërëm ci ubbi gi mu ubbil ay buntam. Euh, waxtaan ak ñun ci site internet bi nga xam ne moo di MK TV nekk ci biir ci biir jumaay Touba donc nag ñu ngi leen di joxaat euh, dig daje ci euh, beneen intervenant ci biir ba tey rek ci biir interview kii nga xam ni ñu ngi koy def ci biir résidence Xaadimu Rasul bi nekk fii ci jumay Touba ji jërëjëf. bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu ala nabiyil karim بعد فإن علاقة الشناقطة بالسنغاليين عموما علاقة أخوة وصداقة وقد جاء أناس فقووها وبنوها بنيانا يصعب يصعب هدمه على مر الليالي ومن ذلك القدوة الصالح العالم المربي الشيخ الخديم رحمه الله ورضي عنه وعنا به وقد توافد الموريتانيون على بابه و كانوا يس كان كان لا يخلو دائما من موريتانيين كان بيته مزارا للموريتانيين وملاذا آمنا يقضون منه مآربهم الدينية والدنيوية ولذلك الشيخ الخديم رحمه الله عندما نفتش عن ديوانه عن عن ديوان الشعر الذي مدح به سنجد أن نسبة 99% منه قد قالها موريتانيون مختلف القبائل ولذلك الشيخ خديم رحمه الله ورضي عنه عندما زار موريتانيا سماها بلاد الصالحين وقد أقام فيهم مدة من الزمن على فترتين حسب علمي قد نفاه المستعمر هناك وقد قام هناك وتوافد عليه الموريتانيون وعظموه وهو رحمه الله كان محل إجماع من من الجميع من البيض ومن السود قد كان محل إجماع رحمه الله لكن الموريتانيون توافدوا عليه ويقولوا شاعر ومنت من الخطوب أتيت طوبى ويا من ومن ألم به الخطوبة فلا غدرا أخاف ولا آلات من الدهر الخاؤون ولا خطوبا به الشيخ القديم ثوى فنالت بيمن الشيخ منزلة وطيبا وقد مدحه غير الشاعر محمد لبن قد مدحه غيره من أمثال الشيخ محمد دنانة والمعلى ومن أمثال محمد فال بن عينين ومن أمثال ابن الشيخ المعلوم البصادي وابن ففال علوي وغير ذلك وكانت له علاقة رحمه الله قوية كانت علاقته قوية جدا بالموريتانيين وقد أوصى بنيه بذلك وقد حافظوا عليه وقد حافظ عليه خلفاؤه خلف اللي سلف اللي خلف وما زال الموريتانيون ولله الحمد يفيدون على هذه المدينة بدعوات رسمية وبغير دعوات فهم يحسبونها بيتهم أو محلهم الثاني أو وطنهم الثاني ويقيمون فيها ما شاء الله مبجلين مكرمين و وما زالوا حتى الآن فمثلا في هذه احتفالات توافد المئات إن لم أقل آلاف موريتانيين بدعوات رسمية وبعضهم بغير دعوات كما أسلفت ويقيمون هنا ويرجعون ب ببشرى الحقائب ولا شك أن هذه التظاهرة تظاهرة عظيمة وقد أوصى الشيخ الخديم والشيخ الخديم هو من هو علما ودينا وورى عنه قد أوصى بتعظيمها وما أوصى بتعظيمه لا بد أن يعظم قد أوصى بتعظيمها تعظيم هذه المناسبة وهو رجوعه من الغيبة البحرية التي فتح الله عليه عز وجل بها, بها فتوحا كثيرة وقد جاء في الثامن عشر من الصفر وأوصى بتعظيمه وكان يعظمه حتى جاء الشيخ خليفة الشيخ المصطفى فجمع الناس لتعظيمه وذلك الحين وهم يعظمونه و يستقبلون فيه الناس و ويفد عليهم الناس من كل حدب وصوب من داخل السنغال ومن خارجها من موريتانيا ومن مالي وحتى أوروبا وهنالك دعوات رسمية حتى يحضر السلك الدبلوماسي المعتمد في السنغال وغير ذلك أما إقامتنا هنا هي إقامة جيدة والمسؤولون عنها يبذلون قصارى جهدهم في سبيل راحتنا وفي سبيل حس في سبيل راحتنا وفي سبيل إحسان إلينا في الضيافة وفي غيرها وقد بذلوا قصارى جهدهم وقد فعلوا قد نالوا قد نالوا ما يتمنون من حسن الضيافة من حسن ضيافتنا وجزاهم الله خيرا بارك الله فينا voilà comme ni ñu ko defee ak yéen fële ci euh, résidence Khadim Rasoul bi nekk ci grande mosquée bu Touba ñu ngi fii ci résidence Khadim Rasoul bi nekk fii ci euh, Darul Mannan euh, fekk si fi aussi ay gan yoo xam ne ñu ngi leen di tuddee ay ganu Cheikhul Khadim ñoom itam ñu war a xool situation bi fii comme niñ ko xamee fële noonu rek lañ koy xamee fii délégation yi ñu ngi tàmbali di ñëw ni ki suba mooy war a nekk bis bu sell bi di 18 safar kenn ku ci nekk di jóge fu ci délégation yi nga xam ne ñoom la ñuy faral di dalal ci euh, kër euh, Cheikhul Khadim yi le euh, donc nag du ñu def lu dul dugg ci biir gisee ak ñi nga xam ne ñooy waa Muxaddamatul Xidma ñoom ñu yore mbirum accueil bi file di yore itam mbiru distribuer chambre yi ak yenn délégation yi saa bu ñu ñëwee ñu installé la yow ak sa délégation bi nga àndal fat la ci fi nga xam ne fi nga war a toog jox la lépp loo xam ne moom ngay yittewoo donc loo soxla rek ci ñoom ngay dem donc nag duma def lu dul ngeen topp ñu man ak yéen ma ànd ak sama man euh, ci MK TV ñu xool situation bi ni mu demee ci biir fi nga xam moo di résidence Khadim Rasoul bu Daarul Manaan voilà comme niñ leen ko waxee ñu ngi jàkkaarloo ki nga xam ne moom moo di euh, Serigne Cheikh euh, Alioune Dramé ambassadeur de l'islam moom nag moo fi teewal euh, askanu suñu maam maam Makhtar Dramé fii ci tuuba kër Cheikhul Khadim bu Daarul Manaan Cheikh bi ginnaaw bi ñu la ziyaare dalal la ci dëkk bu sell bi ñu ngi lay bàyyi rek nga nuyoog internet yi seetaan MK TV di télé bu mag bi nekk ci jumaay Touba. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa mbokku jullit yi nekk ci àddina bi yëpp ak fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ndokkeel ci bis bu mag bi nga xam ne ñun ñëpp ko bokk ndax ndamul lislaam la waaye du ndamul murid du ndamul murid kese ndax Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bi muy liggéey jullit ñee ko toxoon a jukk du mën a sax jullit ñi waaye mindee fii ndax ku dégg ñaanam gu siwam googu muy wax irham jameel wala xam ne mindee fi yëpp sax suuraale leen dépassé na sax fu mu doon ñaanalee jullit su wootee ci bisam bu réy bi pour ñu ñëw teew santale ko suñu borom euh, dañ ci am dañ ci am dañ ci am contentement am ci yëg-yëg sant ci yàlla bi ñu fekkee bis bi nga xam ne bis buñ yaakaaree yiiw la bis buñ yaakaaree jëriñu la bis buñ yaakaaree laaw yokkute la ci mboolem fànn yi ma waral ñu bàyyi suñu yitte bàyyi suñu lépp ñëw teew fekkee ci bis bi di nuyu télévision bi nga xam ne mooy jóg di dox tànk yu rafet yi baarakallaaw ngir bëgg gën a yaatal lépp luy xew ci màggal gi ñëpp ñëpp ñëpp teg ci seen bët barkeelu ko ñu ñaan suñu borom yàlla def ko télé boo xam ne ñëpp a koy xam ci àddina mu doon télévision boo xam ne niveau international sax dina fa yegg ci barki borom bis bi barki sangam ba Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam euh, bu ñu la doon laaj dañ lay laaj rek euh, ban yëg-yëg nga am ci euh, ñëw teew fii bokk ci ganu Cheikhul Khadim yi ñu dalal la fii ci Touba ci dëkk bu sell bi tey rek des ci màggal maanaam suba rek moo war a moo moo war a doon bu sell bi ban yëg-yëg am. waaw yëg-yëg bu rëy rëy rëy bu rëy rëy rëy ah, ndax man Cheikhul Khadim ni ma ko jàppee peut-être wala ni ma koy dundee bokkut ak ñu bëri ni ñu koy dundee man dama jàpp ne euh, euh, teen la wala mooy la soto doo la te ku ne xam na ne ndox important bi mu am ci nit di ci jàpp di ci fóot di ci sangu di nga ci togg taaratul xaddas ak xabas bi lislaam soxla ci nit ki pour mu mën a jaamu yàlla jaamu gu wér sax bu bu bu fekkee ne du yeneen xeeti jaamu yi farata yu mel ni julleek wala nax waasa euh, ku ne xam ne ndox am na ci important man Seexul Xadim ndox laa ko jàppee waaw ndox nag yaakaar naa ne ñun mbindeef yëpp kenn bañu ko waaye ñëpp a bëgg ndox ku mar di nga ko wuti baarakallaahu ku bëgg a seet la it di nga ko wuti euh, ak yeneen ak yeneen yi important bu ndox am bëri na kenn xamul ni mu toll ba tax na mbégte bi ma am mënu ma koo mënu koo wax. sax mu génn ci sama xol bi mooy waral làmmiñ bi di tënku nii mbégte bi foo ko foo ko natt rek dépassé naa ko di dem ndax man Serigne Touba euh, su ma sañoon tey damay bokk ci ñi koy liggéeyal fii bokk ci mu muxaddamatul xidma wala ci wilaaya wala ci yéen ñii ndax man de euh, xëyalagu ma ko fenn waaye dama ko bëgg bëgg gi rek mu yóbbu ci dimension bu kawee kawe ndax nit bu yokkee xam na bu wàññeekoo xam na man xam naa ne yokk naa te Seexul Xadim loxo ma ci xam naa ne feeñ naa te Seexul Xadim loxoom a ngi ci xam naa ne mel naa nu ne ci sama biir mbokk te Serigne Touba loxoom génnu ci li ma ko may man xooluma Serigne Touba xooluma keneen man nitu yàlla bu ragal yàlla lay xool nitu yàlla bu mën lu ma mënut nit yàlla bu ma ëpp yite sama digganteeg sama borom nit yàlla bu ma ëpp yite sama digganteeg sama sang muy Seydina Muhammad mu def ci lu kenn defut teggee ko nu ne joxe bakkanam joxe doomam joxe deretam lépp ne Moustapha ah, yaay sama lépp ah, mu ñëpp. li mu bind yaakaar naa genn wàll gi bu ñu ko xaajee xaajaat ko as xasida Sëriñ Tuubaa rek boo ko yendoo liir ba ngoon euh, li nga war a def mooy moom ni mu defoon ci yonent bi toog doon mbindaanam kon ñun li ñu war ñu doon doon mbindaanu mbindaanu Xaadimu Rasuul ñu di ko liggéeyal ngir mën a am ci tiyaabo bi màggal gi daal lépp lu fi waaye indi lu mooy mooy yàlla ak yàq mbokk ne la wér ne boo yeggee dana faju waaw man loolu dama ko dund ak Sëriñ Tuubaa man du ma murit damay dem fu nekk ci àddina bi waaye njëriñu Serigne Touba booy génn sax nga koy xam mais boo nekkee tubaa wala biir Sénégal doo xam parce que dafa jege dafa jege lool mais léeg-léeg nga génn dox lu sori sori ci bitim réew dox ci dëkk boo xam ne ñëpp ay xonq yu nopp rek nga fay seen tourné ñu ne kër sëñ Touba nga ne sëñ Moutala sax bi muy dund da wax naan kër lislaam bi rek bëri na këru diine yi daan tukki dañ daan fay hôtel yu seer léegi boo tukkee ci benn réew soo fay hôtel yow la neex ndax kër sëñ tubaa boo dem ñu ngi fa réserver ay chambre yoo xam ne pour chef religieux yëpp la amul tijaan amul xaadir amul murit amul kenn yow mi nga xam ne boo ko tarixa bi sax boo boo fa fekkante ñi sant Mbàkke yaa leen fa ëpp cër sooy ñibbi lu ñu am jox la ko kon googu teraanga ku la ko defal mosoo koo xëyal ci toolam mosoo koo jàngaleel doomam mosoo koo defalal dara man maa nga fee rek eh, di tedd ci ci ci Sëriñ Tuubaa bu baax kooku man su ma ko bëggul xaw ma nu may def te it allahu yansuruni wal xalqu tatbuni moo ko wax fil bari wal bahri saa nafi bi laa dara di àddina yëpp ko war a bëgg mbindeef yëpp ko war a bëgg bëgg nit yàlla day dimbale nit ni bañ nit yàlla di alekee nit noonu la bëgg nit yàlla di di dimbali nit nit ku ne mën ngaa bokk fu la neex nit ku ne am nga may bu la yàlla may nit ku ne am na may gu yàlla may si sëriñ waaye may tolloowuñ léegi nag il faut nit ñu comprendre ne may may may may tolloowuñ Sëñ Tuubaa yàllaa ko def nii mu mel soo ci bëggee noppalu bañ a sonal sa bopp da xam ne yàlla séddale rek fami dina am caat mi mujj juddu yor kër ga yor ñëpp di di defar lépp bu toon ak moom dara du baax te am na ñu ko fa njëkk a juddu famille mamaaram bii li muy rëy rëy rëy bu tax toon ak Seexul Xadim ñii sant Mbàkke ñëpp dañuy jaay ci af mbaa ñu uti sareeti mbaam toog ci dàqam Sëriñ tax famille bi volere am na ay mag am na ay rakk am na ay mbokk yu baax yoo xam ne ay habit leen mais euh, borom xam ak mayu yàlla bokkuñu waaw borom xam-xam yàlla bokkuñu li ko may nag mooy léppam la jaay jox Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Sëriñ Tuubaa Euh, damay wax ne képp ku ko topp ba ëllëg yowmal xiyaamati akbar war a taxaw buntu àjjana dugg di am benn jafe-jafe xam nga lu la ko yóbbee lim digle da nga cee nekkul mais moom lim bind digle ko bépp murit bu ci nekk nii sa àddina war a neexee noonu la sa àddina war a yombee war koo neexee sëñ Tuubaa mosul digle fo bu fekkee jullit kaamil da nga koy wër boo téyee Ahmadou Bamba am nga jullit kaamil mosul folu mosul am pénc moo xam ne dañ fay ndagaa wala dañ fay waxee lu la neex wala di ko fa def am benn waxtu bu mos neenal ci ay caaxaan. fu ko waxtu julli fekkaan lépp lu mu mën a téye lu mu rëy amul intérêt buy doomu aadama di teg ci loxoom wala lu lu niroog loolu ba mu bako bañ a bañ bañ a topp yàlla bëgg yàlla bëgg yonent bi ak nangu dogalu yàlla waxtu wu ne ci moom moo waral mu julli ci géej gi li muy julli ci géej gi def ko pour karaama ndax ku ne xam ne nee na moom karaamati xadiyati li mu bind mooy mooy mooy mooy mooy karaamam waaye xam na ne yàllaa ko sant mission xam na ne yàlla mi ko sant mission mu ngi koy gis te waxtu jot na mu julli ci géej gi kon dëgg dëgg dëgg dëgg kéemaan wala dëgg dëgg karaama ci taalibi Serigne tubaa mooy nga topp ndigal li Serigne Touba digle teg ci sa tànk bañ koo teggi nu bëri dañuy màggal si ba ñibbi suñ dal ba de neex na mis yi ginaar yi déedéet ci la bokk waaye li ëpp solo mooy bu fekkoon ne da ngaa doon nit ku xaw a sant siise wala saaxu sa jikko normalut nga màggal si gis message yi ñuy véhiculer boobu ba léegi ku mel ni Ahmad Badawi ku mel ni Rawdu Rayaahin seen liggéey bu am solo boobu nga fexe dégg ci ñaari bayit wala benn boo ñibbee tund ba nga dëkkoon doon taalibe Seexul Xadim da nga faa war a gën ñuy roy ci yow loolu mooy important màggal gi mais du lekk gi du naan gi du du du lix bi boo ko fi toppee boo toogoon sa kër am ko boo demoon ci beneen ruq am ko mais boo ñàkkee fayda ba ñëw nag topp moom rek nga fi am ñibbi soo ñëwee fas ci bis bi ne dama ciy bëgg a jaamu yàlla bëgg cee dolleeku maanaam ziyaara boo xam ne suñu borom da koy nangu defal la ko ziyaada mu doon tawfeex fii ak fa jëm yàlla defal la ko Sëriñ Tuubaa mel na lu ne tey lu ne la yaa xool nag ñuy dugalee sa loxo ci biir géej gi benn baaraam rek mooy tooy ñeent yi mën a tooy juróomi tooy wala fii tooy wala nga dugg sangu fépp tooy Sëriñ Tuubaa euh, soldat Rasulullah sallallahu la wasallam la boo xam ne daal li may wax mbokki taalibe yëpp di leen ko laay biir mooy. neen di bàyyi xel ci sëriñ Serigne Mountakha bàyyi xel ci ni muy doxee bàyyi xel ci ni muy rafetalee man li ma li ma li ma bëgg ci taalibe Serigne Touba mooy fu ma la fekk gën a bëgg Serigne Touba mais fekk la fenn di déng-déng wala may xawlaani wala may xëb Serigne bi di jaare di du ko jaaree ci du ma neex parce que man du ma taalibe Serigne Touba waaye Serigne Touba leen rek laa bëgg dégg ci moom moo fi gën loolu rek laa bëgg dégg bëgguma dégg leen parce que gën gi mu fi gën man gën a lu ma ko yàlla ko def te ci yonent bi la ko amee. moo tax soo bokkee ci moom damay bëgg nga doon bon exemplaire ci xeeti jëf yëpp rawatee nag ci diine lislaam teg ci sa bakkan bi góor góorgóorlu ci rayante ci ba yegg fi nga yegg Cheikh Mamadou Mountakha mii ku ko gis bëgg a bokk moom boo demee Daara Muxti sëñ Abdourahmane ku ko gis bëgg a bokk ak moom habid la kaatib la alim la muallim la am na benn sëtu sëñ Basiru bu nekk fii euh, nu mu tuddati jannatu sëñ Moussa moo ko jur sëñ Moussa sëñ Basiru ñu ngi koy wax sëñ Isaaxa jaamukutu yàlla la ku bëgg yàlla la ku mën a joxe ñam la yàlla jaral ko ne day fanaanee julli ba fajar moom ak ñi mu ànd ak boo demoon fii léegi daara xuddoo sëñ Abdou Samad Sonia bu sëñ Tuubaa jaral na ko ne da ciy gëstu bëgg sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa jaral ko lu mu am jox ko jaamu yàlla yi euh, boo demee sëñ am sa bañ nga ko ni sëñ am sa soñ euh, noytu xasaayit ngay dégg sëñ Cheikh mu sëñ Saaliw ku ko dàq bay ku ko dàq liggéey ku ko dàq jaamu yàlla te boo leen gisee woon nii amaana soo yoree sarax di ko jox bu fekkee mosoo koo gis fenn xamoo ko yooyu moo am solo boo bokkee ci kër gi mais li ci des yëpp euh, boo boo ci nekkee te settantuloo li ngay def boo ituwul li daloon gaaye yàlla di wax naan wa man yafal zaalika fa ulaa'ika humul xaasiruun dalay dal te sonn ci mbir ba pare di perte wayaasu billaah yàlla nañu ci yàlla musal waaye Serigne Touba moom njëriñ la loo xam ne monde bi yëpp mën nañ ci jëriñu monde bi nag ni ñu ciy jëriñoo mooy ñu nangul ko te yàlla tax ñiy di may yëpp dañoo amul may waaye man fii ma toog xam naa ne am na lu ma mën am na fu ma mënee ku ma gis mu am leneen damay xam ne waa ji ma ko jox ko jox yitteem def ba am loolu nag du woon nelaw du woon tëdd ci kilim yi muy tàkk rek du woon ànd ak liem du doon topp buur yi di jël seen ñaq du leen wax lu leen neex du woon du woon du woon ba mu jeex kon yaakaar naa ne lii ngeen di def nii man waroon na ma bis bi daal lu ci waaye ñàkkee yaa ko ci fasu attan la lu ne mën la lu ne ndox borom bis bi eh, noonu la noonu la noonu la dimension tolloon ci digganteem ak boromam ba tax na mbégte moo yaakaar ne am neen ko bu ko weesu am neen ko lii génn li des fii ko ëpp waaw bëgg Serigne Touba moom defaru àddina ak àllaaxira la ku bëggul Serigne Touba doo am cër ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam boo bëggul Serigne Touba bëgg dara ci yonent bi boo yeggee dañ lay bloqué dañ lay retourné lu wér laa lay wax soo soxla woon dara ci président Macky Sall mii ne fi am koo xaw a def ak ñii ci njabootam wala soxnaam di nga ko bëgg gis mu tëla wala boo gisee la la fa yóbbu danga bëgg mu sotti te du sotti Serigne Touba yàllaa ko jukkil jox ko li mu koy jox. yàllaa ko jukkul jox ko jox loolu nag moom moo ko jaayante woon ak boromam mu jaral ko lool moom laa la wax sànq ci début bi ne la ñi mu bokk ak bëri na fi mu bokk ñëpp xam neen ko muy askanu Mbàkke mais bu askan bi amee valeur ba ku bëgg sant Mbàkke wala askan bi am valeur ba foo leen gis boo amoon téeméeri at gis ci ku nàmp léegi ba fer nga sumi ca mbaxa toog euh, toog moom moo jaayante woon loolu diggante ma boromam ci ragal ko ak jaamu ko ak topp ndigalam mook ko may ragal gi mu ragaloon yàlla topp ko moo waral xol yi nangul ko xoli taalib yëpp nangu Serigne Touba yow mii fi mu toll nii boo yoroon cent millions képp mag gi laaj ko da nga ko ci def boo xëyee suba ut loo jëndee li tax nga koy def moom lam nekkaloon boromam moo koy def su ma la ko laajoon wala kenn laaj la da nga naan ah sëñ bi xaal ma xool kat est-ce que lii dina ma arrangé su ma ko ga wala ah su ma joxee lii nangam ak nangam waaye ku nekkal ba yàlla gërëm ko koo koy toog tëju ci néeg nga yor 200 koo gis mu ne leen meeram damay bu tëj ngay jënd 500 millions dana tijji ànd ak i soxnaam ak i njabootam doom yëpp jaay libéré la ko te naan la saa yoo soxlaa ñëwal ci magasin bi Serigne Touba nag xamoon na magasin bi xamoon na jaaykat bi xamoon na kiy jaral njaay mu jox ko boppam di ko liggéeyal daj lu ne nag daj lu dañ lu ne dañ na ko ñun li ñuy wax nii asaka la ci Serigne Touba am na yuñ ci xam yoo xam ne ay magañu ko dee buñ ko waxoon fii léegi màggal gi tëj wallaay kon murid yëpp ay faatu par benn ak benn ndax xam naa ni ñu bëggee Serigne Touba te mag moom ko wax wax wax wax ju wér la ma te la wax dëgg la du fen mukk toog na fa ak Serigne Touba bàyyam yónni ko Serigne Touba ay yoon yoon mu am yu mu fekkee yu bëree bëri waaye Serigne Touba li ko yàlla jaraloon ñi jaral waxtu yu bëriwut ren nag ñu def thème bu am solo muy fexe ba nit ñëpp di dundee lu dagan loolu bu ko sëriñ bi defee xamaa day fàttali jullit ñëpp ñu gën a góorgóorlu waaye ci këram gii nga xam ne mooy Touba mën nga fee sepp exemplaire yu bëri Cheikh yu Mbacke mi ma la wax nii kenn dàq ko liggéey sëñ Cheikh Ndigal Fall yaa ngi dajeeg moom si gan soor Tamba mu ci tool yi ak ñeneen ak ñeneen ak ñu ma xam ak ñu ma xamut yooyu yëpp kon day mel ni moom liñ ko fi taajee xam na ko mu ngi fàttali mu ngi soññi barki démb laa toog di seetaan télévision bi gis mu yëkkati cent vingt millions dimbale ay mbokk jullit yu loru lu jiitu loolu trente millions jumaa yu Tiwaawan ci li mu ci def ci alal kenn xamul nu mu toll boole kook yeneen i def yoo xam ne doo ko yëg waaw damay wax ne sax moom daa nar réer nit ñi rek ba dem kenn du ko xam waaye suñ muntaxaa moom ah góoru xay buy xam nañ ko tey billaahi mooy njiit la weg nañu ko waaye nag moom day rey rek nit jàmm la rek léegi nag ku mel ni man wala yow bu bu muusut ba takk ndiggam li parce que yéen jëriñoo ci moom loo xam ne même bu demee njëriñ day day bu demee da ngay perte parce que li mu lay jox rek ngay gis enveloppe bi euh, ak oto bi euh, li fi ne bu demee rek nga ñàkk ko toog euh, daal di perte mais soo takkee sa ndigg ànd bi nga ànd ak moom nga ànd ko ngir yàlla. ànd ko ngir bëgg lu baax comme ni mag ñi baax ñi nga dégg ñëpp ni ñu àndee woon ak Serigne Touba tey ku ci ne say famille ngi tedd say sët ngi tedd seen maam yee jaayantoon ak Serigne Touba Serigne Touba ba tey mu ngi fi jugu fi gis nga li ma wóor bu wóor tey màggal gii mbëkkante nga moom fukki yoon ak juróom téyewoo ko wóor na ma ne subaak léegi yaa ngi mbëkkante ak moom téyewoo booyatu sax di nga ko tàllal micro parce que ñoom deewuñ te du mos a dee xayun fi kulli yoomin a dee Euh, te lii ngay gis nii muy màggal geeg yeneen xew-xew yeeg julli géej gi sëñ Tuubaa ba fii may waxee yàlla fayeku ci téeñ bi la nekk nii lu mu ko téeñal mu yenu fay gi fay gi nag àjjana lay doon joo xam ne nii murit bu góorgóorlu as lëf dañ naan nii rek nga dugg sans contrôler laissez-passer ngay am lii yen la kenn kenn kenn li sëñ Tuubaa mel nii jaaxal la déedéet yen la rek yàlla boo ko liggéeyee te liggéey ba wér tege ci yoon muy dëgg wala lance yi bés bu jugee pour fay la loolu àjjana lay doon lii lépp. man Cheikh Aliou Dramé ambassadeur de la bu Serigne Touba war a yenee liñ ko war a fayee mais fayaguñ ko kon baarakallaahu mbégte woo yaakaar rek am neen wu ko ëpp euh, euh, li may dénk àddina di ko dénk jullit ñi di ko dénk sama bopp mooy yàlla dafa bëri le lool sax am na luy nit di am fii ak nu mën a toll di ngay génn fii léegi gis ko gëmul yàlla gëmul yonent bi doon siif mu may ko ko kon bu ko mayee kuy liggéeyal yonent yàlla Muhammad ba ñëpp xam ko ci léppam di rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye ñëpp neen wax waaye ñëpp neen wax waaw sawaawun fi kullil fi euh, nu tuuti fi euh, doomu aadama na ñëpp wax waaw Sëriñ Tuubaa li ko yàlla defal teewul nga ñàkk may teewul ma ñàkk may teewul keneen ñàkk may ñëpp am neen may mais ñi may ñoo tolloowut waaw nii xaalis ci woroo ëppantee doole boo bëggee dem premier étage escalier bi ngay jël ba ca topp ba ca teg ni ñu waroo asamaan yi ni ñu waroo jëf yi ñu waroo noonu la may waroo yàllaa ko def nii waaw te lii dama ne la yenn la rek dara ñëw ñëwagut te dina am lu ñëw loo xam ne eh, yàlla leen ko fekkee te bokkuñu ci jëriñu man li ma la wax moo nekk ci man guuma ay murit ak tiijaan ak laay ndax xaadir loolu dafa gàtt dafa xat te yàlla dafa yaatu comme yàlla dafa yaatu mag ñi woote wuñu woon tarixe kese mais lu yaatu leen woote woon kon man du ma tënku ci tarixe bii laa nekk du ma dem fële tarixe bii laa nekk moom ñoom rek laa war a waxal lu baax tarixe bii laa nekk du ma waxal ñee lu baax kooku ku ku ku jàpp ne mbir yi dafa xat moo ko war a def te mbir yi xatu dafa yaatu lu yaatu nag ku ne xaj na ci amul ku ci xajut ku ñëwut jëriñu yaa ñëwut ay Sëñ Tuubaa woonu ñëpp géej géej jéeri yi yaa xalal baari yaa xalal baxri leer na nañ ñi ku ñëwut rek yaa ñëwut waaye képp ku ñëw lépp lu la tax a jóg incha allahu rabbi soo ko ci fasee di nga ko am man loolu laa gëm maa ngi ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha xalifatul xam yàlla dolli ko wér dolli ko doole ko sutura doole ko teraanga nitu jàmm la yàlla na yegg yeggaleeg jàmm euh, suñ borom euh, defal ko tawfeex ba université bi nga xam ne bi mu toogee moom la njëkk a euh, déclaré mur yëpp pour ñu jug taxaw su mu door liggéey ko ñu sanc ko sanc ndoor moom te mu fekk ko fi vraiment kilifa gu baax la kilifa gu dal la jàmm rek lay wax waaw xamul loolu jàmm jàmm rek la xam bépp temps bu muy am wala lu wala wala jot lu mu ndaw ndaw dem na jaamu ji ko yàlla ndax ndax ndax doon na lu doon na doon na lu bëree bëri Serigne Touba. waaw nit nit nit ku baax la ku ko miin jaxasoo moom rek xam nga jaxasoo ngaa ku baax euh, mu yemale ñëpp fu gàmm jotee fu yeneen xew-xew jotee mu defi délégation comme nit ñi ni ñëwee fekk si ko yëkkati teraangaam yëkkati ay juróom yónnee yónnee ndawam ndawam mi toog fa depuis sëñ Saar yi ba tey ñu ngi koy def waaw yàqu ci dara ba mu ñëwee ni mbiri eh, eh, eh, tëddee woon noonu la jëlee mbir rek continuer ko noonu muy dox fii ñu ñuy dalal fii tey nga xam ne muqaddimatul xidma ñoo ko séq ak wilaaya Cheikh Mamadou Mountakha tey bu ñu woon fii ñun di ñu teeru li ñuy muqaddimatul xidma di defal ak wilaay mënu ko xaj na xol ba dina ko mën kon ñu ngi remercier ñi fi nekk ba nga xam ne nit ñi téye ñaawut jekk na rafet na liñ fi am mënuñ ko am suñ kër yi liñ fi am tey buñ suñ soxna yi ñu takk yilif leen suñ ñëwoon eh, Fatou may ma ndox di nga ko wax fukki yoon ak juróom indi nga ñëw fii ñu boole laak lu mu néew néew ay gor yoo xam ne gënoo ci kenn juróom-ñaari gor wala juróom-ñett teg leen fii soo ne nii ñu ne loo bëgg fu mu mën a nekk ñu wuti ko teg ko sa loxo lekk gi manqué wul naan gi manqué wul loo lu rëy rëy la te sëriñ bi bu ñu woon fii gàtt nga ñu boppam it mënta def lu weesu loolu Moukhaddamatoul Khidma boo ñëwee noonu dinañ la accueillir waxtaan ak yow dalal la. di la woo di la toppatoo di laaj li nga nekk di laaj sa jàmm yaram loolu teraanga gënu ko fort kon sëñ taxaa ñu ngi koy sant di ko seddal ne ñi mu fi bàyyi mat neen ndaw mat neen ndaw euh, li leen war ci ganu lislaam bi yëpp ñu ngi koy def ñëpp bég neen euh, ñëpp ngi ci jàmm ñëpp ngi ci salaam te li ma wax nii foo tàlloon micro ci kër gi moom lay wax ba mu di gërëm Cheikh Bachir Abdou ak stafam yëpp Cheikh Abdou Guène Fane ñu ñi koy liggéey ak ñëpp bàyyi wuñ kenn ñiñ bàyyi fii daal ngir gënul islam bi amul ku fi tumuranke amul ku fi jaaxle amul ku fi am benn problème lépp mën na amul lu fi manqué lu ëpp manqué wul loolu nag bu la ko nit defaree day rafet day jaar day jekk nga nga nga yëkkati kàddu mu dégg ko estafam dégg ko këram dégg ko ndax yàlla borom bi subhaanahu wa taala moo gën a bëgg ko sant kon euh, comme mooy buur bi te bëgg na ko ko sant ngir mu dolli la kon doomu aadama bu defee yow teraanga war nga koo sant gërëm ko ndax lépp loo xam ne dafa am rafet kon su amutoon dana ñaaw lépp jaadu na lépp rafet na daal lépp tege na ci yoon ñun dañoo kontaan suñ xool sedd guy waaw lu ñu war a wax ak lu ñu war a wax sax fu mu toll nii ko waaye daal ñun bis bii buñ ciy ñëw buñ jëlee suñ tànk teg ko oto li ñuy fas du àddina aaju yi ñuy fas àddina ci gën a tuuti ndax li tax ñu koy fas borom bis bi daa mën lépp waaw borom bis bi tëliwul dara ah, kon li may dénk mboolim jullit ñi ak fu jullit maa ne nanga nga yaatal sa xol bi def ci seexul xaddim te mu doon dëgg ci yow bés boo ko defee bisu njàqare ba bu taxawee wala nga ne ci biir bàmmeel wallahi malaaka yi wër di contrôler ngir final nit ñi buñ ci gisee seexul xadim jéggal la féexal la nga maafiya wallahi naasim yàlla seer na ko kon ñu ngi gërëm bu baax di sant di la ñaanal tawféex ak kii nga xam ne moo yor jumtukaay bii di filmer moom it di ko ñaanal sutura ba li ngeen bëgg ci bis bi yàlla defal leen lu ko lu ko raw sëriñ Tuubaa bisam bii li muy def ci réew mi kenn xamul nu mu toll fi mu toll nii 15 jours ci ginnaaw su la fekkee bitim réew doo mën a am billet pour li ko waral mooy teelaw def réservation quinze jours ci ginnaaw am na yu ñuy jënd fii nii ci réew mi soo ko commandé wul doo ko am 15 fii may wax ak yow am na dëkk yoo dem kër yi bëri da ngay fekk ñu tëj seen buntu kër ya am ñu tëj seen magasin ya te Touba ngay gis marchandise boo xam ne bu jaree Touba la Touba ngay gis koo xam ne boo ko gisee Touba nga ko gisee instant yii may wax ak yow li fii nit ñi di di di di consommer suñ jëloon li Sénégal di consommer par at bisu Touba bi moom benn jour la koy waxuma li muy def ci xolu jullit ñi waxuma message yi ñuy véhiculer pour taalib yi dégg ko war ñoo jëriñu mais économie gu réew mi li ci màggal Tuubaa def xew-xew defu ko fi su la neexee ngeen dem mm, gëstu loolu gëstukat yi bu ñu ko bëggoon a gëstu pour leeral ko ñëpp xam ko mënuñ koo gëstu ci weer lépp a dox dara taxaw loo yaakaar ne du dox rek tey nit a koy wër loo yaakaar ne du dox tey nit a koy wër am na oto yoo xam ne bañ gëjee daw daaw la mais fu mu toll leen fexe ba peinture tuuti accéléré tuuti dem suñ bambaa yor yëpp. am na ñoo xam ne fi mu toll nii suñ paree ci màggal gi dépasse six mois dépasse un an loolu yëpp mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi sosu ci bis bi ak barke bis bi kon kooku wax dëgg yàlla bu wootee lu mel ni ñun teewee ko ñun kontaan rek lañ ciy def waaw sant yàlla rek lañ ciy def ñu ngi ñu ngi bég bu baax euh, di gërëm nag sama xarit boo xam ne ñu ngi koy wax Omar Sow muy directeur général bu. وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر